jëm ci wàllu jàkka beneen bi mooy euh, euh, jamono yi ci internet bi dañuy gis euh, ñi nga xamante ne dañuy woowee seen bopp ay sëriñ sëriñ yi nga xamante ne ñaanalante ñaanalaate ak sëriñ yi nga xam dañuy defar ay sunguf ak yooyu guerre bu metti boo xam ni saagante lu ne ngay dégg ci biir internet bi maa mën kii mënoo lee oustaz ñooñu ban ndax nangu nga seen seen mbir yooyu nu nekkee. waaw am na ci nag ñu yàlla may. Hmm. am na ci ñu am xam-xam ñoo xam ne xam-xam bi nu am dañ koo jàng mm-hmm. gëstu ko ba yàlla defal leen ci lim leen ci defal mm-hmm. mais am na ci ñoo xam ne dañuy naxaate xàmmee leen nag dafa jafe mm-hmm. te senegal ñi rëy làmmiñ lañ gën a jox bopp mbir boo ca nekkee di rëy làmmiñ di naaw di tiitalaate yenn saa yi nga interview ba mu yàgg nga ne eh! yow doo yem yow te fekk waxoo kenn. da ngay woon Sénégalais yi nii da ngaa may jinne <laughs> mooy scénario yooyu dafa neex. Mm, mm. yooyu yooyu mm, yooyu bu ci duggee rek tappale am na. ñi boo demee fekk fa gaaña. fa waaja nekk boo demee fekk fa gaaña. amul benn liggéey ci àddina bu jar xuloo bu jar yàqante. rawatina jaay sunguf jaay reen xaw ma yu mel jaru ko. kun ci wóolu nit ñi seet si la. jarul hmm. yàq kenn bu kenn yàq kenn kenn mënta yàqal kenn. Hmm. xool asamaan jarul buuxante ku teen da nga ko gis. maa la ko bu kenn yàq kenn. Hmm. ku ci ne daal la nga nekk bu dee dëgg xam nga. bu dul dëgg xam nga. bu dee dëgg saxal ci njub bu dul dëgg ay la yéwén da ko layoog yàlla ëllëg. ndax ay naxaate kenn mënu cee kenn mënu cee dëkk dañuy wax ne naxaate ñetti fan la bi nga ko tàmbalee. bis bi la jàpp bis bi nga koy bàyyi. moom naxaate moom naxaate yàggul. waaw yàggul waaye nag nañu nañu nañu delloo si xel yi. Hmm. xasante bi ci internet bi ñaaw na. ñaaw na trop. te li ëpp ci li ñuy xas nit ñi ay sos la. Hmm. billaahi wal kitaab na nit ñi defaat attention ci yu ñuy waxal nit ñi. bari na koy xoole mbir doonu ko. yàqkat bu rëy làmmiñ a fa jaar. sa Sénégal léegi ñëpp yàqu nañu. mais hmm. buñ la bëggee yàq dañ lay sosal. parce que buñ yemee ci liñ la xamal du garaaw. yan yan cay dolli. mais pour ñu pour pour mbir mi yéeg. Hmm. da ngay créer. dolli ca. Sénégal loolu mooy fooram. Hmm. su ma la bëggee xas tey xas mu la bu la feebar xas bu la xas bu la rey boo xam ni boo waxuma la da lay rey yow. Hmm. mais à vie nit ñi ku la xool loolu lay xalaat. mooy damay jékki-jékki ni la xam nga tey laa la mas a gis. damay jékki-jékki ni la <laughs> noo tudd. majow Madiaw damay nga baal ma ci kàddu gi nag Madiaw damay joxe exemple damay jékki-jékki ni la Madiaw <laughs> boo xamoon doo ma tooñ xool noo juddoo mm. baat boobu la ñuy utiliser mm. wala ñu ne la Madiaw xam naa la tax tax xamul sax Madiaw mi ngi lay doo a gis mais pour nga blesser ko mm. Sénégal pour nga blesser nit dafa am fay dafa am point yoo koy laal mooy demal nga xool noo juddoo demal nga xool kuy sa baay demal nga xool ku la jur séq naa ak yow nangam. Mm-hmm. demal nga faju ji doo góor bin jëflante xam naa yaay kan mm-hmm. demal ak sayu gàtt ay terme la yu ñuy utiliser xam nga luñ ci jublu pour ray la mm-hmm. fam ñoo xam ni bu xuloo jotee dañuy wuti ay yu yuñ la teg pour yàq la parce que guerre guerre la xuloo xuloo la loo mën a sos da koy sos nit ñi xuloowatuñ ci dëgg xam nga tey bu doon dañuy xuloo nga wax ma dëgg ma wax la dëgg ku ci ne dafa war a xool jikko bi ñu ko waxal moom la wala du moom mais sénégalais xuloo bi muy def mooy dalay sosal lu ne weng am na koo xam ne boo ko sosalee day pare ci guerre bi parce que du ko àttan am na wax yoo xam ne sénégalais àttanuñ ko oustaz yenn saa yi nag damay toog di xalaat sénégal euh, naka la lanu yàlla war a jugé ñun sénégalais bu ëllëgee parce que yenn saa yi ma gis yoo xamante ni damay tiit dañ dul xam gravité bi nekk ci internet. xam nga Google ak YouTube loo bind mu génneel la. Mm. léegi nit ñi dañoo précoce. Mm. dañuy gaaw a màgg. Mm. boo dundaatee quinze ans bu la yàlla dimbalee nga am doom doom ji day am quinze ans day mat a sëy. léegi nga xalaat quinze ans ci ginnaaw am na koo doon yàq deram ci internet ba léegi mi ngi fi. 15 ans ci ginnaaw YouTube bi dalay lay génneel bi nga taxawee di saaga kii bi nga taxawee di xas kii. Mhm. say sët dañuy ñëw sa mhm. papa nekk nii. loo nekk ci àddina boo boo faatoo loolu la ñuy xalaat loolu la ñuy indi. Mhm. ñu denc la ci sa bàmmeel nit ñi di la xalaat ak a ñaanal ñu dugg ci YouTube bi ndeysaan fuñ tourné yaa fa nekk. est-ce que lu baax lañuy gis ci yow déedéet saaga xasante waxante lu bon te lépp mbiri àddina dong gisagoo ku xeex te yàlla tax. gisagoo ku xeex ngir lislaam politique xaalis daraja succès mhm. mooy sunu histoire mooy sunu problème xas diw saaga diw attaqué diw wax diw lu ñaaw ku la neex neex na la ku la neexul neexu la bari na koy attaqué ak di ko saaga ak di ko xas defu la dara da nga koo mënta supporter mhm. am na koo xam ni xeexu jàmbur ci la nekk mais nekkul ci xeexu boppam mhm. day guerre pour nit day saaga pour nit kii kontaan. Hmm. day attaqué pour nit kii kontaan. fa la ñàkk fay la tàmbalee am na ni fay ngir boo bëggee xam ki yaayam liggéeyul. Hmm. mooy kii jël xeexu jàmbur di ko xeex. kooku la yaayam di nelaw bi nit ki di liggéey. Hmm. sa yaay bu liggéeyee ci sa kër baay nga am jom doon gor kenn du la def arme. réew mi dafa toll foo xam ni guerre booy guerre diagnostiqué ko xam nga lu tax. ki tax ngay geer balaa ëllëg day jubóog ki ki ngay guerre. bari na ku duggoon ci histoire tey réccu nga ko hmm. gaañi bu ñu wéetee dañuy juboo showbiz jaru ko média jaru ko addina jaru ko lu fi waay def danga ko fiy fekkaat nañu rafetal bàyyi xuloo ñi war a ànd ànd hmm. ñi war a juboo juboo mbir mi yaatu na hmm. ku mën defal say preuve nit ñi ku fi def preuve ñu topp la ku fi def preuve ñu jox la nopp tey may site bii wala may site bii jaru ko boo duggee fa ñuy abonné xam ku ne lam mëne ñaata ñaata nit ñoo abonné ci yow da nga koy xam. Hmm. tey bu ñu ne woon Oustaz Modou Fall par exemple dafa am site Sénégal 7 am site ñu bëgg a xam ñun ñaar kan la sénégalais yi gën a jox nopp jarul xuloo suñ duggee YouTube résultat yi day génn. maa la ko wax damay am damay xam ñaata abonné laa am. maa ko xam ñaata vie la sama video di am man yow sa vidéo ñaata vie lay am. Hmm. foofu rek mooy àtte nit ñi lu leen ñorul duñ ko xool. wax buñ ko tegee ci teguwaay bi rek.